الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان تي في جسان voilà jërëjëf mbokk téléspectateur Kosi TV ñu ngi am beneen yoon kàddu contentement ak mbégte si ànd bu rafet bi nga xamante ne yeneen ko ànd ak ñun tey nag ñu ngi fi nga xamante ne tey moom la ñuy wax man Baol Fayda di Kosi gi nga xamante ne ni dëgg-dëgg tey lépp fu faydu bi egg rek tey cosaan li fii si Kossy la tey nag ñu ngi wàcc si ëtt boo xamante ne nii kenn la si mag Mawlana Cheikh Ibrahim si liggéeyu euh, faydu bi tey fu mu egsi rek turam ak liggéeyam egg na fa ndax si bayti yi bàyyi bind benn rek ma nañ ko seetaan muy ruulu ëdëb ne ku ko mokkalu rek xoolal si jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahima Fall kon kooku rek fa la ñuy tënk wax ji egg si kilifa yi ñu xamale ñu tey jotaay bi fii nii ki jàkkaarloo kan la mu nekk xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim di bàyyi Baye Fall Zeynabu nekk fii tey si Kossy ñu bàyyi kenn si kilifa jotaay bi rek mu xamale ñu jëmm ji ñu nar a jàkkaarloo pour wax si Mawlana Cheikh muy Cheikh Baye Fall Zeynabou papa gannaaw la fekkee fii rees jotaay bi ñu bëggoon a xam jëmu ji jàkkaarloot mooy kan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi gërëm di sant te di ñaan e, télévision bii ñuy wax Kossy TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax tur wi rek lam ëmb na lu bare bare bari moo di ne yéen itam ay liggéeykat ngeen ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bokk ngeen ci ñi nga xam ne ñooy tasaare euh, woote Baay mission Baay ci àdduna ndax jumtuwaay yi gën a xariñ ci àdduna bokk na ci euh, télévision muy moyen de communication boo xam ne mën na egg fu nekk ba tax na bu ngeen ñëwee ba fii ci Kossy nga xam ne dëkk bu ndaw la réewut ñëw ba fii ci néeg Maam Ibra Fall mi nga xam ne be kenn la ci kàngam yi daroon bàyyi ngeen génnee lii tasaare ko ci biir àdduna kon yéen a ngi liggéeyal bàyyi ci bunt bu rëy rëy kon ñu ngi leen di gërëm te ñu ngi leen di ñaaral yàlla yàlla gën a dëgëral seen mbir te gën a yëkkati seen i maqaam seen daraja fi ngeen bëgg a yegg yëpp ngeen yegg fa bi jaay Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kii ngeen fekk fii tey nag eh, doy na ci présenté ko ne mooy eh, Cheikh Ibrahima Fall di kenn ci ñi Maam Ibra Fall tuddee woon Baay Ñas radiyallahu anhu mooy ñetteel ci ñi nga xam ne ñoom la Maam Ibra tuddee woon Baay Ñas radiyallahu anhu muy Baay Seynabu doy na bon ci présenté ko ne doom la ci Maam Ibra waaye itam taalibe la ci Maam Ibra waaye itam nag liggéeykat bu mag la ci kër Maam Ibra Fall loolu yëpp ay maqaama la yoo xam ne boole na ko e, Maam Ibra Fall bi nga xamee ne mu ngi ñëw fii ci Kossy jógee Kébé ay numaat yi muy dëkk boo xam ne moo ko sancoon ca dend ak Passy bàyyi sañ sant ko ne na ñëw dëkk si fii ci si man booba man ak ñoom ñoo nekk ñu nga ñu nga woon foofu ci dëkk ba ci ket bi fa lañ ma bàyyi maa ngi woon ca daara ja ñu ñëw bi muy ñëw nag kii la àndal ñëw fakk samp néeg yi boobu ba léegi nag dañu ci kër gi di liggéeyal baayam néeg yi fi nekk yëpp moom ak taalibe yi ñoo ànd def ko lépp loo xam ne soxla la hittee la ci boo xam ne baayam hittee woon na ko mu taxaw nekk ca ba loolu sax moo ko bloqué ba mujjul dem génn dem jàng bitim rew te lu mu bëggoon la nag ku bëggoon a dem Qahira jàngi la waaye nag liggéeyal baayam moo ko moo tax demut Baye Seynabou e, doom la waaye doom gi daf ko jël jëndee ko taalibe ku bëgg baayam la Ibra Fall ku koy roy la ku jaar ci ay tànkam la waaye itam nag ku bëgg taalibe yi la kuy jëflanteeg taalibe yi ci jëflante bi gën a rafet royukaay la ci bëgg baay royukaay la ci liggéeyal baay ak baayam royukaay la ci tarbiya ndax lim tarbiya ci euh, ay doomu aadama kenn xamul ni mu toll ba tax na gannaaw si gi sax baayam laata mu fi jógee lu bari ci taalib yi bu ñëwee moom ci moom la leen di yebal moo leen di tarbiyaal moo leen di defal sayru moo leen di defal lépp su ko defee bu ñu waree yeeweeku bàyyam yeewee leen dem kon kii mooy Baye bu Fall mooy war a waxtaan tey ak yéen euh, ci euh, taarixu Maam Ibra Fall àndam ak Baye ak sabab bi tax mu ñëw Koosi ak bi mu ñëwee Koosi itam liggéey yi nga xam ne liggéey na ko fi euh, taalib yi ñëw fekk si ko fi liñ fi def yëpp danañ ci dem ak yéen. kon ñu bàyyi leen ak moom moom bàyyi Seynabou Fall mu waxtaanal ñu xaatuna bi yëpp déglu ko te jëriñu ci incha allah jërë ngeen jëf. alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent salaa salaam ñu ngi wax alhamdulilah rabil aalamiin alhamdulilah rabil aalamiin alhamdulilah rabil aalamiin eh, gannaaw bu leen nuyoo. ñoom itam seen wasila sayda nee na ci am mi ngeen nekk ci liggéeyam daa man ñu ngi nuyu itam mbooleem ñim àndat ci pay Cheikh Ibrahim Niass ci buntab maam Cheikh Ibra Fall eh, kii nii sët la ci moom mooy Cheikh eh, nga xam ne ni mu ko waxee rek noonu la xamee barnaam bi sax suñ ko joxoon moom lépp mën na koy wax ndax xam na kan mooy maamam e, daay man kii nii e, bàyyi la muy e, bàyyi mu yaaraa bi kii sëñ daara Babou Gueye la moom itam mu jaayante Cheikh Fall gannaaw bu ba pare eh, delsiwaat fas yéene dëkk moom ba pare ubbi daara ji di ko jàngale ba ay kaang kaang génne nañ ci daara ji eh, yaa def ma may ko soxna soxna bu nekk ni ndimbalam ci daara ji eh, loolu yëpp sant yàlla la ñii la yàlla def tey ñu fekkee jotaay bi nga xam ne mooy moom la yàlla E, e, tudd ci asal asal mooy abar rek tey ñi fi nekk nii bu ngeen demee fu mu mënta génn rek ñii ñoo fay génn kii mu nga bàyyi ko kaw la léegi na ñëw nga xam ne bon e, mu oon ma démb ma ne ko maa ngi Kaolack yàlla def na bi ma ooyee mën a maa ngi ñëw waaye du doon programme bi sax moom yëgul ko waxuma ko woon déedéet Eh, dafa am fii dëkkuwaay fu mu nekk waaye eh, ci gàttal yépp ci siru Cheikh Fall ak mbootam nga xam lii waajaay la ci waajaay siyaare bi nga xam ne mu ngi ñëw si te ki nga xam ne mooy magu taalib yëpp ci jamonoom eh, li bàyyeekoo bi Cheikh Fall sañcee fii ci Kossy yi ci ndigalal sëriñam Cheikh Alaaji Ibrahima Niass mooy Cheikh Abdoulaye Wilane mooy magu taalib yëpp te Cheikh Ibra moo ko waxoon na Abdoulaye mooy magu taalib yi ko ñëw jàpp siyaar bi mu nekk lakk lakkaat ci weer wi ñëw ba léegi nag e, ci li ngeen laaj ci njëlbeenu Cheikh Ibra ak e, ànd ak moom ak bàyyi xëñ na liñ sa xam sax du bëri waaye nag e, ñu liñ sa xam ñu mën koy wax rek ngir jamono ndax fi nekk nii dama koy wax pays bi fi nekk nii eh, eh, dafa am ñoo xam ne dafa am borom fi nekk nii amuloon borom nag ba mag ñooñu nga xam ne ñoom dañoo jogoon ñëw fii ci Kossy doon liggéeyal yàlla xam ne yàlla rek lañ bëggoon yàlla dajale jëmm joo xam ne mooy jëmm yàlla di xam la yàlla fees dell mu Cheikh la Laay Ibrahima Niass boo pay bi amul doom amul mbokk amul dara yàlla ak jaamu yàlla yoo xam ne dañoo soxla yàlla rek boobu boobu moom la pay bi amoon fii ci Kossy Cheikh Ibra Fall def na mu ngi juddoo Gàmbi ci baayam eh, maam Babacar Fall yaa def eh, ñetti eh, ñaar doom la fa am muy bàjjen Aysatu Fall ak Cheikh Ibra Fall Cheikh bi mooy naam feragul sax la bàyyam génn àddina waaye fekk bàtt la woon ne e, e, e, Roqeetu Sall bu pare liggéey nañ ko jox rakam mi nga mooy maam Cheikh Tidiane mii mi nga xam ne moo jur yaayam Khady Fall Eh, ba liggéeyam pare mu ñëw fii nii eh, eh, senegal ci Kébé denda tawa wax na ne gént na gis jëmm joo xam ne mu ngi war fas ni ñëpp ni ñëpp ñu ko topp ak taar boo xam ne booba yëre marocain sax la sol waaw ba mu laajee baayam mu kii nii mooy e, e, e, Seexu Tijaan mu ne ko bon lu ñuy def fii nañ dem waaw Seexu Tijaan kay bu ñëwee ci dëkk bi bu ñëw kenn njëkk waaw booba li jiitu rek baayam dal di ñëw bañ si tege ay fan jamono la maamalaaj Ablaye Niass dal la ñëw eh, eh, Kébé ci taalibeem bu ñuy wax ba maam Ousmane ku jeexoon ci maamalaaj nga xam doom yu doom yu li sa gën a bëri yëpp maamalaaj maam maamalaaj leen tuddee woon ba ci eh, baaj màkka mi nga xam ne moom la bàyyi joxoon saam mu xamoon saam bi mu ñëwee nag bi ma ñëw mook bàyyi ñëw ànd moom maa laajab laa ñas bi mu ñëwee nag ba nga xam fi nekk nii reer nañ pare e, la maama laaj waxam maasmaan kebe ne ko yóbbul Ibra Faal mi ndax yóbbul Ibrahima Ñas e, mu dem fanaane ci kër Malick Fall ci loolu bi ñëwee wax ko maam Malick mu dal oo Sewar Fall na ko sëriñ bi moo ebal fii doom pour mu ñëw fanaan fii yóbbu ko sa néeg waaw ker lañ njëkk gisante waaye bu mu ko gisee rek la xam ne kii lam gisoon Cheikh Tidiane sol yëre boobu moom la bàyyi sol waaw mooy sol simel sa laaju par di jël kii ñuul yooyu dala ko sol te mu def ay bouton nii te du am loxo nii waaw eh, eh, eh, ba ba mu asiyee mu pare ci la ko laaj soto la mu jox soto la mu dem yeesal njàpp pare da ñëw laaj ko der mu lal ko muy naafil foofu naafil foofu ba nga xam fi nekk guddi gi sori na mu dal la ñëw mu pare ba pare ne ko wér faal mu dal ko mu ko nelawoo mu ne ko déedéet mu ne ko joxal toog mu jox toog mu ne ko xam nga man may kan mu ne ko déedéet waaye maa ngi ñaan yàlla xam ma yowee kan ci loolu nag e, e, ci la ko bàyyi jël dala dat ci dënam yoon boobu moom la njëkk gisante moom e, ci guddi googu la ko jox alaamualeykum maawali waaw booba sere ñu ànd ñëw noonu ci boom ci lañ ya def sawqo bi ci la waaw ba nekk na koo xam ne bàyyi eh, gisante naa moom njëkk mu ñëw ci moom waaw ñaareel bi maam alaaji yoon na fa eh, bàyyi ak bàyyi Moussa jóob eh, ñu ut bant xalimba ba ñëw ci maam Mali Fall mu ebal ñu utal ko bant xalimba pare ñaari say maam maam Alpha ne gunge leen leen eh, ngeen yenu say yi bañ sori ngeen door a dëpp bi nga xamee ne yàlla def nag eh, Sewar Fall yàlla jox ko sayu bàyyi mu enu ko bañ ñëwee ba nga xam fi ne jum nañ caaxoo romb nañ eh, tawa teg ci dëkk bi kii kër sëñ Ndar ca diggante bañ jumee néegi caaxo yi leneen bàyyi na man ngeen yem fii ndax buñ bàyyi ko caaxo rek chauffeur la ñoo ñëw dala ñëw ko aussi waaw ci li Cheikh Oumar wax mu ne gannaaw bu mu xamee bàyyi pare mu ne su xamoon ne e, kooku mooy xut bu samaan ndekoon ba mu koy gunge e, e, dal yenu say wa doo ko jox mukk la lu dafay ànd moom ba ci koosi mu door mu door a say wi loolu moom bokk na ci li mu wax ne moom ci li mu ci ànd ak bàyyi waaw euh, euh, euh, te booba am bàyyi nongal ko waaw gannaaw gi nag la door a laxas nag tàggum bàyyam bi ko yar maam Malick Fall dal ne ko damay dem Kossy pour pour siyaare ji sëriñ ma dégg foofu te xam ne moo fi ñëwoon mooy bàyyi bi mu ñëwee mën a ko luy sa tànk moo dama ñëw pour jébbalu si te booba baay booba ñett rek ñoo nekk moom Baye musaa jóob ak Babacar Yacine ak Baye Mbaye Niass moom Maam moo leen joxoon e, e, e, moo doon jàngal booba dara xewagut waaw ci la Cheikh Oumar njëkk ñëw dala jébbalu si waaw ba mu njëkk bëgg mu oo ko ne ko nga ne ndong lan mooy sa tànk mu dala ko wax mu ne ko alhamdulilah waaye nag mën naa defar ku nekk de ba mu des ku ñàkk fulla ndax dangay ngay defar nit ba mu bëgg a pare rek ñàkk faay rek yàqal ko mu dem la nga defaroon eh, eh, eh, di jur leneen daay yàqu man ma ne xaama am naa ful wala am fulla waaye ba ma dee nga suul ma doo ma gis doo gis mukk fa mu gis doo fa dégg ma ne ko bana baan bismillah ba mu ko ñaanalee fanaan mu dal dellu nag ba mu ba nga xam ne nag nag mu ngi tàmbali la tàgguwaat baayam nag dala ñëw fedd gi ci loolu ci la faydu bi boo booba mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi ñor te ko waaw mu nekk bàyyi ci bustaan xaari fii nag boo boo bàyyi foofu la nekk feeñ ak faydu yëpp ci bustaan xaari fii na foofu la ko ci foofu la ko ñëwee Cheikh Fall woo na ne bàyyi daana jëkk bu guddi mu dal di sikar sikar gu diis bi nga xam ne booba benn sikar ñëwagut lu dul boobu mooy sikar bu njëkk bi ndax lu tax mu diis boo bàyyi fees na dell ak jëm yàlla ji lépp ñor na eh, eh, eh, waaye nag boole yi ñëwaguñ bañ mën a ba mën a si piyëf yi ci xaal boobu nag Cheikh Fall wax ne bàyyi daan sigaret ba mu yàgg rek mën a tell boppam neen tànki neen eh, eh, di dox eh, mbedd bu lay bi di dëpp di sigar di dëpp di sigar ba fajar di bëgg jot mu dellu yeesal njàpp dal ñëw julli si fajar waaw ci xaal boobu mu ne bàyyi ñaqam doo gis mukk mu roogaat ay bul laay def rek di wàcc waaw Eh, eh, eh, ngir tàngooru xaal boobu mm, mbedd mi nga xam ne moom nga doon wax mooy mooy da nga xam ne mbeddam Seexu Tijaan mi la ko tuddee Bulayda boobu kóosi rek la ko yàlla jagleel soo demoon Léona soo ko laajee duñ la wax ne fii la soo demoon Taïba soo ko laajee amut fa soo demee Mérina soo ko laajee duñ la ko fa wan kóosi rek ah, la bàyyi tuddee mbedd mi ne mooy mbeddam Seexu Tijaan waaw mooy mbedd mi jaar noonu rek dellu jëm ba kër Baay Mamour ga diwaan mbedd bàyyi ko ci bunt kër Maamalaaji jëm noonu mooy mbedd ba lay waaw waaw xaal boobu nag sikar boobu diis bi ak tàngoor bi lu tax dafa mel ni ji togg mbana bam mu ñor te yàkkaguñ ko tangor waag lepp lu eh, eh, lu nekk ci bir mu ci bir de nga dara dara dara gennugut mo da bay sigar bobu la ilaha illallah la ilaha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 sëñ Baye Mbaye fa leen ko fekk sëñ Ousmane Ndiaye ak sëñ Ibra jëm bés Baye oo leen ne leen ngeen daal gis naa leen ngeen jëm ki bu xam yàlla te te li ngeen yaakaar ci man nekku ci man daaneen bindal leetar ngeen dem ci penku am na koo xam ne su ngeen fa demee lépp lu ngeen boo xam ci yàlla yàlla dana ko xamal mu kooku dana ko xamal ñu dal noppi bi noppee noonu bàyyi ne du ngeen tontu ñu ne pat ma xanaa yéen laa wax ñu dal noppi ba mu yàgg Cheikh Fall na ko yonent bi sallallahu alayhi bu ñëwoon toog fii nga toog lépp lépp lu la joxul joxul la ko nga jox ma ko ama ci moom soxla Seexu Tijaan su ñëwoon toog fii lépp lu indi su la ko joxul yow bàyyi mii nga jox ma ko ami soxla waaw rawatina bi ma yàlla xamee ne dañ xam yàlla te sa jëmm ji lañ ko xamee waaw ci ci la eh, eh, eh, bàyyi na Ousmane Ndiaye tontul kii dof la dafa Ibra Faal gi foo la bàyyi ko waaw muy kiiraange boo xam ne la ci biir neexut a wax waaw ndax dof dafa libre ci boppam waaw te bàyyi na ne man may sëriñu dof yi ba nag bu tuddee Ibra Faal dof ban dof dafa am libre ci biir eh, eh, ci biir faydu bi waaw ci loolu nag ci ne Ousmane Ndiaye tontul kii dof la moom tontu naa li nga xam ne moom la Ibra Fall tontu jamono dafa jafe fi nekk nii taar yi dafa jafe ndax lu tax dañoo jël yëf yi am ñu ko jagleel te pay bi yàlla bi amul jagleel déedéet amul doom ndax ñoom bi ñooy sukki fii di tarbi ci bàyyi booba doom juddoogut waaw waxuma laa sedd di juddu waxuma leneen di am te boobu ñoom yàlla kese moo tax ñëw ci bàyyi bàyyi dem xamal leen jëmm yàlla ji ñu nekk ñi nga xam ne ñooy bool yi nga xam ne ci la ñooy tibb di yekk ci booli bool yi booli ndaw yi ba suppeer yi ñooñu ñooy e, juróom ñi nga xam ne moom la bàyyi samp fii te jamono booba juróom-ñaar la woon Serigne Mbaye Cheikh Oumar Touré Serigne Ousmane Ndiaye Cheikh Ibra maam du ñang alaaji Laamin tuuti ñoo doon juróom-ñaari kàngam yi nga xam ne si bàyyi booba doom doom amut wala su amee itam xamul sax li bii mi ni mooy lan waaw moo tax fi nekk di waxtaan ci faydu dafa jafe waaw waaw waxtaan ci faydu dafa jafe moo tax ñu bëri duñ jëriñ ci ñu bëri waroon nañooy jëriñu pay bi ca njëlbeen ga waaye fi nag boo ko waxee dañu wax ko doom rek nangam laa fekk déedéet waaw yàlla noonu la demee waaw toujours taarix jaase la ju ñëw joo xam ne bu xasee ba xàccee rek dafay foral rek waaw loolu la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu ba mu ootee ca màkka mbokkee ñoo njëkkoon a bañ Cheikh Tidiane noonu bàyyi itam nag noonu mbokk du ñoo mukk lu du xayal xéwén te xay du xéwén mukk nag te fekk mooy yoon wi parce que mbokk bu ñëwee rek dafay baari yëf yi képp ku yàlla may mbokk yi njëkk laay gëm sa mbir moom gannaaw la jëm waaye du dem kanam mukk ndax bu yàggee lu ñuy wane mooy lan kii gënul ñu bañ topp di ko bayal wala nekk di ko defal la di ko dajal xaalis di ko moomu tëdd mu tëdd doomam du liggéey séddam du liggéey keneen du liggéey ñun rek ñoo fa nekk liggéey loolu mbokk du ko def de Cheikh Fall bàyyi mos na ko yónni fekk mu ngi taw mu xiin xiinu ñuul kukk moom ak Modou mbay bàyyi yónni leen saako ceeb fale ci kaw Kaolack mbaam lañ yóbbu maasu jànka da liggéey na ne eh, eh, eh, Ibrahima doomi jàmbur yi nga yónni moo man su ma dee yónni moo doomi jàmbur su ma doom laa yónni bañ génnee Kossy rek la semence ridi Cheikh Fall wax na dox nañ bàgg Kaolack ñu ngi seen ndox mi bu ngestoo seen kanam ñu ngi seen ndox mi te ndox jotul leen suñ ngestoo ñu ngi seen ndox mi te ndox moo jotul leen jotul ndox mi ndox mu jotul leen bañ ak si Kaolack ba ñëwee booba pom bi ñu ngi koy liggéey Cheikh Fall dala wax Baye Mour Mbaye na ko nag mu foofu man ma dem ba mu demee jël saako pare dala ñëw tefes gi booba e, kii yaa ngi fi gaal yaa ngi fi waaye ji mujj ñëw nag ak gaalam ne ko yow foo jëm mu ne ko ci tefes gale ca borom mbaam male mu ne ko ndax loo xam man waa ama dara su ma sëriñ moo yónni waaw mu dogal ko saaga làmmiñ Cheikh Ibra Fall daana ko neel fii siyaare bi siyaaru njëkk yi Cheikh Ibra Fall waxu ko dara mu dem si kan dal départ na ko ma man kenn maa des si mool yi loo xam nga ne mu la ko mu dogal ko benn saaga Cheikh Ibra Fall waxu ko dara mu ngi téye kurusam rek waaye dem yàgg ruuxam yedd ko mu dal dëpp na ko jógal mu jóg saako bi mu jël saako bi ñàkk ko teg ko ci gaal gi na ko yëgal mu yéeg mu joow ba ci tefes gi wàccee ko teg ci kaw mbaam mi ne ko yow xam foo dëkk de waaye soo fa gënu kenn gënu la saaga naa bu njëkk fayee ko ñaareel fayee ko man xam naa ne li nga wax su nekkee ne dañ say bind bàkkaat yow la ñu bindal bàkkaat waaye wóor na ma ne li nga wax su ma demee suma gannaaw ndey du ma fekk moo tax yëf yi xar xool baaxul ci boobu bu ko saagoon mu saagoo rek moom foofu lay fanaan ak saagoom dégg nga saako boobu taw bi doolu ko ne de bañ ak ci saago bi tooyu tooyuñ bàyyi dale o bàyyi bi Touré ne ko kaay seet kéemtaan sewar faal bi ñooy dem taw bi soobu na bi ñooy ñëw taw baa ngi taw te ba léegi tooyuñ saako bi tooyut nga xam ne borom jamono mënul nekk waaye dafay fekk na taalib ba dëggu nag waaw moo tax ñoom noonu la noonu lañ nekkoon fii ci bàyyi ci jamono bu jafe boo xam ne moom boo moom mbokk yi ñu ne bu bàyyi dem taalib yi ne ñoom eh, eh, eh, jamono bu nekk li ñoo soxla bàyyi dal jóg moo tax taarix dafa am ñoo xam ne doo ko tudd waaye bu dul bu dul <laughs> bu dul loolu nda woon li ñu si xam yëpp bëri na waaye teggiinu taalibe ak teggu ni pays fi nekk nii moo tax comme pays bi dafa am borom am na doom am na ay sët ah, moo tax il faut que na yow da ngay fexe xéwénal sa taal yooyu fekk nga xam lépp nag waaw Cheikh Fall ci loolu la ko yàlla mayee mboolem ñu ànd doon doomi Cheikh Fall da gis rek sant ko liggéey mu liggéey ko ci mboolem mu xaddami ànd doon bon ko taalibeem nga dafa dëggu woon lool te loolu te la yar nag taalibe yi waaw loolu te la yar taalibe yi bàyyi yar leen ba pare nag ñoom ñooñu nag mu ijaasaal leen jox leen digal e, ñu tasaaro kenn ku nekk dellu fa nga dëkkoon pour yar mu gën a e, e, yaatu moo tax mag ñi ñoom noonu lañ nekk woon boolewu ñoo kenn bàyyi liggéey liggéey bu rafet ñu yar itam ci loolu leen yar tey soo demee ci ci Abdoulaye da xam ne kii ki ko yar ah Cheikh Fall moo ko yar Cheikh Fall eh, eh, ko yar fa bàyyi jaaraloon Cheikh Fall foofu la Cheikh Fall jaaralee Cheikh Abdoulaye Wilane ba maqaam yu am te mu am ko nga dem ci Seydou nee na ci am kasaalik nga bàyyi koy dem ci daam ka kasaalik nga bàyyi ko dem ci muxtaar ka ñoom ñëpp ah Cheikh Fall ci boppam moo leen yar yar boo xam ne fa leen bàyyi na ko bàyyi yare woon noo leen yaree pare ba yëg ne ñii nii ku leen jaasal mën nañoo yokk fi muy dem su ko dee mu jox leen lijaas illaa waaw moo tax ñu ngi sante lu baax eh, ñu ngi sante lu baax eh, foofu la ñu suñ kàddu waaw tey di ñaan yàlla siyaare bi ñëw yaneelu tijaamee la yëpp ba ñëw te bàyyi rek la siyaare si ndax ndaw lañ yoo xam ne bi ñu ànd ak bàyyi fii kerek bi bàyyi di def gàmmuwaat gi eh, ba mu bàyyi ko leew na ci gàmmu ko magga gàmmuwaat gi ci la ko defee fii ci Kossy ci néegu ñax néegu pet marso xëpp trois mètres bàyyi na leen boobu sëñ Ibrahima Fall moo doon wëy ak bayam Fatou Diallo mi ni ñom ñaar ñoo doon wëyal Baye Baye di firi bañ jula fi fileer pa bàyyi na yeen ñi ñep ay sëriñ ngeen taalibe yi wuñ lool amut jamono ba neexu doon dégg de waaye borom jamono borom jamono moom moom jamonoom ba lepp la gis waaw fam tàmbalee jamono ak fa yam lepp xam nako waaw koku moy borom jamono te ban te li sa gannaaw dem da ko xam de ndax fi nekk ni mag Sall bi mu yéegee ah la Abdoulaye Wade def xam na ko laab Abdou Diouf def xam na ko la Senghor doon def xam na ko moo itam bu bu wàccee rek keneen ku toog itam kat noo ngaa xamee léppam borom jamono noonu la mel borom nag ko ko tuddee fekk doo borom jamono <laughs> waaw waaw moo tax am laaj ñu ngi ñaan yàlla yéen yow dimbali saa dimbali si baatin di ñaanal. Eh, sang yi xam ne ñooy doon Mawlana Cheikh Islam Alaaji Ibrahima Niass nga xam ne yàlla moo leen jox cër boobu e, bokk ku ku mënta bokk ci deretam rek yàlla may na la chance boo xam ne mayul ko keneen e, e, yàlla guddal seen fan te may wér mel ni jaam mel ni xabool di ñaan yàlla xalifa bi yàlla guddal fanam te may ko wér ci bàq si rajo Salaam te semb yi nga xam ne moom la war a semb ci bi. pay bi laa wa de wax ma ci yeneen yi de mbirum tubaab bi moom loolu mu bokk ci moom seen bi pay la moom aaw eh, ñu ngi ñaan yàlla lépp yàlla maral ko jaar ci baatin eh, eh, di ñaan yàlla ki nga xam ne moom lañ wax ne mooy imam bi tuddee ko imam akbar sur boobu yéen yàlla def mu dëppoog moom jaar na xam ne baayam noonu la nekkee woon mu nekk ko ak taalibe yi te nangul leen ko magam mi nga xam ne moom moom la remplacé yàlla def ko itam eh, siru ba eh, magam nekkoon ak taalibe yi mu ngi ñaan yàlla mooy itam mu nekkee ko ndax bagage la boo xam ne ku toog rek moomoo ko faydu bii képp ku fi toog rek ko bàyyi xel ne danga fi jóge ëllëg ni nga remplacé rek la na remplacé waaw fexetal rafetal rafetal koo xam ne ku ñëw dafay yokk du loo moom déedéet déedéet waaw la boo xam ne pays moo ko moom waaw ndax ñi xam ne ñoom lañoo ñoo remplace ñoo rek la tudd kii mooy xalifa Baye kii mooy xalifa Sëñ Aliou kii mooy xalifa Cheikh kii mooy xalifa Cheikh Mor kii mooy xalifa Sëñ Man Ndiaye kii mooy xalifa Abdou Niang ah ñooñu kat ñee ñooy liggéey liggéey pare waaw yoo amul lenn loo xam ne da nga ko ci defal lu rafetal eh, eh, tool bi ak jaami yàlla yi ñëpp ànd nekk benn ñu ngi ñaan yàlla loolu yàlla may leen ko isaar ci baatin ci barke yonent salaahu salaam barke Cheikh Matiyaan barke Baye Bayam. mooy si maanaam ñi yar si wàllu tarbiya. Hmm. ñi nga xamante ne nii su loxoom lañ jëlee tarbiya nit ñi léeg-léeg ñu indil la histoire boo xamante ne doo xam fan la jógee koo. Hmm. tey da ngay ko si conférence nga dégg ñu diw sàngam moo tarbiya ma su jànqa. Hmm. mi nga ne a xam si boobu tuuti waaw alhamdulilah ci li ñu doon wax rek mooy li ma wax ne pays bi dafa am borom dafa ami doom ami sët ba pëñam yàlla mbir mi suñ mbiram bàyyi la mbir mi suñ suñ maam la te bàyyi jëlewul mbir mi ci bàyyam jëlewu ko ci maamam waaw coow li ñu wax yépp na maam alaaji xamoon na yàlla xamoon na yàlla waaye xam yàlla ci ci yonent xam yàlla si Cheikh Tidiane la woon waaye xam yàlla ci xutbu nag moom deful ko mukk nag loolu mu fekk woon xut bu sukk ci ronam tarbiya ni e, e, yaayu xut bu sukkee ci ron Cheikh Ibrahima Niass tarbiya xam woon bu ma laaj xamoon yàlla di ko xam le bon soxnaa mi ñoom ñoom dañ di xamal yàlla ah bon maa su jàng <laughs> di ñëw di dugg tarbiya ca jamono ba nga xam ne yàlla rek amoon Cheikh Fall la ko booleen moo ko yar soxna njëkk yépp ci fii ki nga xam ne mooy soxnaam su bàyyi su mag de yaas daawud maam maam Cheikh moo ko yar dégg nga Yafaat Jaañ maam maam Cheikh Fall moo ko yar mboolem soxna ñu ñëw fii moo leen tarbiyal mboolem soxna yi ñu yómbale na bàyyi si Aliou Cissé moo leen ak doom yi waaw lu nekk rek jagle yàlla la ku nekk la ko yàlla jagleel nañ ko wuti Cheikh Oumar Fall tarbiyool ko wala bàyyi seen tarbiyaal dooy bàyyi wala eh, soxnaay bàyyi yi eh, eh, nekk mbir na teru na bàyyi ko tarbiyaal ah <laughs> teru na bàyyi ko tarbiyaal ah coow loolu la waaye te lii saayit mooy ne yaaf at mi xam ne ci la sama baay génne àddina ci nawet bi ci bunt nawet bi ci la fi ñëw ànd ak sëtam e, siiri da dafa dem nuyu jógo moo dama nga na sa baay maa ma oto ma dem siyaari suma sëriñ siiri dama ko baayam mu jox ko e, mu oo jàllo e, mooy safaru sëñ daam boobu mu nekkoon sëñ suma daam mu jox ko Mercedes bawol bawol bi li ñuy wax Mercedes bawol bawol bu weex bi ñëwee ba ci buntu kër baay mu taxawal ko dem ca maam ne ko oto bi ñëw na bi ñëwee ba dugg ñu tourné rek dal ñëw ci xaru baay bi ñëw bi ne ko maa wàcceel moo fa la mën a xaru baay mu ne waxuma la fii wàccut sax moom ne koo si laa wax sama sëriñ Ibra Fall laa wax ñu ñu tourné ñëw fii biñ taxawee ma dal ñëw nuyaante ñëw pare man si nu Anta Baye mu ngi fi man waa mu fi ma ñëw sama baay wax ko mu dal di génn ñu dajee si buntu néeg bi mu dal dugg ñu daal si néeg bi toog dem sama baay nag su ma laaloon du ma su ma laaloon sëriñ du ma si toog moom soo toogu damay tëdd moom tëdd na bu yàgg moom waaw man ko maam dimbali ñu rek nga toog toog ci kaw ngir boo jog nga nga nga gën a neex a dimbale mu dal toog dal dal nettali nettali bi ne ma siidi mii laa waxoon ne ko demal ci sa baay mu am oto ma si aada sama sëriñ moom mu dem yow ma ci bi waaw maa su ma sëriñ bi dafa laa wax waaw moom ma nandal ci péye bi yàlla bi taalib bu jógee di siyaara rek moom bàyyi mu ne léppam mën na waaw ndax siyaara taalibe moo ko moom kan mooy siyaara taalibe bi ñëw defar ba pare walbati ko ne nañ dem nag feeñal suñ sant yàlla ci suñ sëriñ loolu rek mooy siyaara moo tax doom doom du ko jàpp doom doomu sëriñ du ko jàpp de siyaara doomu sëriñ di ko jàpp waaw taalibe yi ñooy dajee ne ba sàngam nañ dem siyaara ji suñ sëriñ sëriñ moom toog nag ku ñëw rek mu wër ko buntam nangul ko siyaaram waaw waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla wut leen ci warwaay yëpp ba ñëw koosi siyaar si te beneen saas la ndax koosi gi mboolem muqaddam yi fii lañ liggéeyal yàlla waaw sëriñ Mbay fii la liggéeyal yàlla fii la tarbiyoo fii la xamee yàlla xaalu fànnaawam déggu ñakk ñàkk fànnaawam xaalam ronkoñam suuf si ko si la ko yàlla jagleel Cheikh noonu Cheikh Ousmane noonu Cheikh noonu Seydi Aliou Sow noonu eh, wi noonu ñoom ñëpp suuf si ko yàlla jagleel ah, seen dëgg xaal yooyu ak seen fànnaaw yooyu ak lëggeel Cheikh Ibrahim ah suuf si si la ko yàlla jagleel waaw bon yàlla mënoon jël Ibrahima bàyyi fa mu nekkoon waaye bon ndëgg yi xam ne moo nekk suuf su Kossy taalib bu ñëwee foofu duñ ko am ah ba nag Kossy rek la yàlla maye loolu waaw du Taïba du Mérina waaw Mérina moom ñeneen ñoo fa tarbi waaye ñoo ñoom Kossy lañ tarbi yow fa lañ jëlee liñ jëlee lépp pare bàyyi nag door dem Mérina waaw siru boobu nag moom képp ko xam ne ñëw nga Kossy lum néew néew néew yàlla na la ci ndëgg loo xam ne bàyyi moo fa déggoon tànkam ci xaal booba Serigne Mbaye noonu Cheikh Oumar Touré noonu Serigne noonu Serigne Rafal noonu Seydi Aliou Sow noonu Ma la xam ne ku fa dëgg sa tànk seeraam xaaram safara wala ma foon tënk la xam ne ku fa woon seeraam xaaram safara bàyyi mooy tenq la day wéy na waaye ndéglu nag moom foo na seb vrai ci mbir na dégg fa sa tànk rek mën ngaa génn fii yontu sa laasom déggoon na fa tànkam waaye xaalu bàyyi ci ndéglu la cause rek la ko yàlla jagleel ba ñu ngi ñaanee la taalib fi ñëw yanee la may suru ndégu yooya war a ci sa tànk ba xam ne xaal ba dana ñëw ci yow xam ba dana ñëw ci yow yëgg dana ñëw ci yow te ñaan yàlla ñu xubbeeku jamono nag yaneen yàlla may ñu xubbeeku jamono yaneen yàlla may ñu xubbeeku jamono ci war waaye dëppoo jamono fi nekk man li may ñaan du oto sax voiture avion lay ñaan yàgg naa koy wax ne aérodrome bii bàyyi koy moom ëllëg te taalib ñoo fay indi seen avion yi ni nga xamee ne aw si naan dugg eh, saxaar di ñëw di wàcc ci eh, eh, foo ci mbiri nag ci alto bi ma jigi benn benn di ñëw di dugg avion di ñëw di wàcc Dakar mu jigi fi nekk ñu ñoo jël Eh, eh, kaar yi di ñëw yàgg-yàgg voiture am ñoo ñoo ñëw foofu gaari ji fa kere fa Cheikh ma daam wàcce bàyyi ko Maroc kere fi ma añu ma taxaw laa ne bàyyi sanc na aéroport bi wallaay lazim waaw waaw ma fekke am ma ñaar fukki loolu mu dinaa moom <laughs> ah. waaw te yanañ ko fekkee waaw fekkee lépp mantu yomb na waaye yanañ si fekk eh, <laughs> yanañ si fekkee dara waaw ñu ngi leen ñaanal yéen itam eh, yàlla watu leen saar watu leen ci baatin watu seen wasila watu mbooleen lu mu àndat ci yàlla saar ci baatin ñaanal dañ leen ñaanal yàlla yàlla may leen seen télé bopp boo xam ne lépp lu ngeen bëgg a suyee ci pay bi eh, eh, yéen a koy suyeel seen bopp yàlla manul yenn a ko def yaare bi ci bakki Eh, pay bi ci bak suru alquran am mbootam bak Cheikh Ibrahim Fall mi nga xam ne mooy seen buntu waaye barke saabu yi àndoon ak moom muy Serigne Mbaye Cheikh Oumar Touré Souleymane Ndiaye Semra Fall Mabdou Niang Wolu Nawi ak ak ak eh, eh, Alaaji Lamin Tuuti waaw loolu lañ amoon ci lu leen lu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa